dina am candidat ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéem a tànn seen candidat euh, est-ce que mën nañu xaar tamit plus tard nga retrouver euh, sa sa sa te vos vos anciens camarades. mais je mais soxna si c'est la quatrième fois nga may poser la même question mais moi je maa ngi ci suma yoon maa ngi ci opposition. waaw mais d'ailleurs aussi d'ailleurs aussi parlant des supputations euh, tout le monde se demande mais ana candidat au président Macky Sall bi. mais dina ko tànn bien. dans six mois. non bon donc les gens dañuy def des trucs voilà xam ngeen ñu nag aussi kenn mënu leen tere xalaat li daan xel kenn mënu ko tënk dañ naan oui mais bon ak tout cette euh, effervescence euh, voilà est-ce que président bëggul reporter yaa ngi ma naan am na ay opposants yu d'accord mu ngi waxtaan ak ay opposants euh, est-ce que du looloo tax déggaguñ candidat bi ah non président dafa war a organiser ay élections non pas mu ngi waxtaan ak ay am na ay opposants yoo xam ne du ñu bañ report bi parce que ça leur permettra de mieux se se se se se préparer. non non non fii loolu ku koy def bëggoo Sénégal parce que bu ñu reporté amatuñu président. février bu ñu tenirul des élections le Sénégal n'a plus de président xam nga xam nga chat échaudé craint l'eau froide xam nga boobu xëy na day bañ li ko daloon ci affaire assemblée nationale bi De l'autre côté, les gens ont dit, jox nañ la carte blanche à la fin de la fin, son choix a été contesté. Et il veut que son candidat-là soit le plus consensuel possible. la muy def sax moom man la muy def mais mais candidat bi dina intervenir peut-être dans les dans les jours à on comprend retard-là. Ah bon voilà donc euh, beaucoup de Sénégalais ont des interprétations aussi en se disant bon mais on espère que on va effectivement aller vers des élections en février et cetera mais sax moom sama yoon newu ci wax dëgg yàlla. moom mooy xam moo xam ne muy tojee bopp jana xam mais aujourd'hui euh, li nga xam ne mooy li am solo mooy président Macky Sall fexe ba ñu am des élections yu ñëpp bokk je pense que c'est dans son intérêt dans l'intérêt du pays dans l'intérêt de la démocratie ñu dem vers des élections libres transparentes sénégalais yi choisir ki leen bëgg ki ñu bëgg mu jiite leen kooka doxal li mu war a doxal. boo naan élections yi ñëpp bokk mooy Ousmane ko mën a bokk. je pense aussi.